le dimanche 12 avril le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 104 tests réalisés, deux sont revenus positifs. Il s'agit d'un cas contact suivi par nos services et d'un cas issu de la transmission communautaire. ce jour, 19 patients hospitalisés sont déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour donc, 280 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 171 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, nous avons 106 patients sous traitement dans nos, dans nos Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect scrupuleux des mesures de prévention individuelle et collective. ñu liral leen situation bu bés bi tey dimanche fukki fan ak ñaar ci weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat wu test yi ñu def si téeméer ak ñeenti test yi ñu def ñaar ñoo si positif bon nag ñaar ñoo si am jàngoro benn bi cas contact bu ñu doon suivre la benn bi kaawu transmission communautaire ñu yëgal leen tam ne bésu tey bi fukki patient ak juróom-ñeent wér nañ si ñi ne woon hôpital danañ leen génnee si bës bi ñu yëgal leen dem ne ñu nekk hôpital ñu ngi yëg tan ba mu commencé ak léegi ñaar téeméer ak juróom-ñett fukki cas la Sénégal déclaré ñu yëgal leen tam ne si ñaar téeméer ak juróom-ñett fukki yooyu téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn ñoo si wër ñaar génn si àddina kenn ñu évacué ko bon nag ñi nekk hôpital tey di faju toll na ci téeméer ak juróom benn ministère de la santé et de l'action sociale ngi ñaan population yépp ñu respecté bu baax li ñu leen digal